et eh, ñun ñu nekk ay mbër yàlla def nattu ci moom kon mënul lu dul teew fii et au nom de tous les sportifs au nom de tous les lutteurs pour jaal ko di ñaan yàlla soxna Bintu mi fi jógee yàlla suñ borom xaaree ko àjjana te teeru ko ci àjjana yu gën a kawe njaboot gu fi bàyyi yàlla suñ borom teg ci loxo et loolu daal moo nekkoon teewaay bi di gërëm ñëpp di sant ñëpp jërëjëf. ñu gis monde lamb <coughs> promoteur yëpp daje hmm. bo gisee lolu yow en tant que leader ban message ngay lancé ci lolu ak lan lay def ci yow wa lolu moy en fait message buñ fi fekk rek parce que Sénégal dëkku teranga la déjà xam nga dañuy faral di wax né Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar sëriñ bi sank da wax ci biir né nekatul ay wax mais ay jëf la et je pense que né à travers cet acte parce que tay ñëpp c'est vrai que yeen sax ay journalistes ngeen di def sen liguey mais de manière aussi particulière xam naa seen teewaay aussi pour seddoo bés bi ak Aziz la aussi parce que loolu mooy Sénégal parce que tamit Sénégal nekk na loo xam aussi et c'est vrai que mun nañ xuloo mais munuñ xasante ba tax na aussi tamit luñu ñuy rafetlu la di ñaan jamm ci réew mi xam nga parce que jamm ci la lépp xaj ñaan ki fi jógee parce que tay besu recueillement la ak prière ñaan yalla suñu borom teeru ko ci àjjana yu gën a kon ngeen baal maax nak ma ngi leen di gërëm bu baax. rafet na rafet na.